رب العباد ولا يموت رب العباد ولا يموت ci ndigal xalif général de la Fayda Tijaniya di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass et sous la présence effective de Mouhamadoul Mahdi Ibrahim Niass dayratul iman wal hamdi ànd ak seen njiit seen muxadam di Cheikh Mouhamadou Al Amin Ndaw di leen woote di leen yëgal seen gàmmu annuel ren ji nag jàpp nañ ko le samedi 6 avril 2019 à partir de 23h ñu ni fan la fële ci robinet Abdou Mané yoon wi jëm lii sa Demba Diop mal ko wax mal ko wax diine xewleeti na faydu bi wooteeti na gàmmu annuel ñu ànd ci ak dayratul iman wal hamdi ak seen njiit Cheikh Mouhamadou Al Amin ndaw di leen woo ci bakk yàlla dundal faydu bi waaye fàttali mbindu mag ñi ci programme bi bu 9 jotee ñu wàcc kaamil ñaanal réew mi ñaanal faydu bi ñaanal xalif général bi ci bu 23 jotee ñu dalal gan ñi maanaam mise en place commencé guddi gi nag ak Zikroullah ak Moustapha Ba Abdoulaye Dramé ak Babacar Dramé le 6 avril fële ci robinet Abdou Mané ñu ànd ci ak Dairatul Iman Walhamdi le avril 2019 partir de 23h asalaamualeykum wa te def ko muy imaamul awliya